salaamaaleykum ma ngi ziar ñep di ñep euh di len wax ni euh, message bu am solo la pour euh, tous nos frères immigrés yi nga xamanteni ñi nekk ci diaspora bi euh, les sénégalais de de l'Allemagne xam nga yi nga xam ñoo nekk Allemagne am problème jafé jafé ñu kayit Macky Sall dem di len di len identifier di len génnee dëkk ba mom ñom ñoy bolo di def ben rassemblement bu mag ci gaaru Munich bi fofu noonu. Euh, suba midi ñuy woo Sénégalais yi nekk diaspora bi yëpp ñu am këyit ak ñu amul këyit ñëpp ñu daje Munich ci gaar bi suba jàppale si seen frère pour ñox Macky Sall mu arrêté identifié mi identifié doomu Sénégal yi rey seen bopp daw dang-dang yi jaar ci gaal yi jaar fu nekk ba yegg si foofu pour l'amour du ciel mu dimbal leen te yàlla tax te ñu wax ñu wax sénégalais foo mënti nekk nag ku mën a déplacé wu na nga déplacé wu ci Europe bi fekk suñu frères yi parce que ñëpp génn ñi am kayit ñi kayit ñëpp di rendrale hommage aussi ñoom tamit Sidy Lamine Niass leen jox dox daje suba insha allahu rabbi foofu ci gaaru Munich bi à de midi insha allahu rabbi suba le 8 décembre jërë ngeen jëf salaatu wasalaam ala rasulullah